يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا القبل لطفاء يا برد أحرام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسمك اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تواخذنا بما تعلمه منا يا عليم حققنا بحقائق العليم ويا علمنا خلقنا بخلق حقائق العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wa sallallahu wa sallama wa baraka wa majjada wa sharafa ala almabuuti rahmatan wa hidayatan lil alamin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man iqtafa wahtada bi hadiyihi ila yawmi ddin ixwaani axawaati fi llahi lillahi wa ila llah niyaabatan an ilxalifati assayid aboubakar mouhamadul mansour niyaabatan anhu aqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi bu ñu musloo ci bakka ak seytaane ba pare ñu ngi ubbee wax ji rekk ci turu borom bu tedd bi subhaanahu wa taala mi nga xam ni moo bind ñëpp moo amal ñëpp moo amal léppit di ko sant bu baax a baax di julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam gépp di yëkkati kàddu nag ci sunu turu kilifa muy sëñ Babacar si Mouhamadul Mansour yal na ko yàlla saxal te baati nuyoo yi mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ziyaare Sénégal gépp mboolem jullit bu fi nekk rek sëñ Babacar a ngi lay nuyu te di la ziyaare di fedd li kóllire gi nga xam ni moom la ñu yàlla boole ñun ñëpp te moo di innamal muminuuna ixwa jullit yëpp ay mbokk lañu muy yëkkati kàddu googu nag jëm ci képp koo xam ne kii yaa ngi ci dëkk bi tey wuyoo turu jullit mu ngi lay nuyu te di la ziyaare di fedd li kóllëre gi nga xam ni moom la leen yàlla boole wax ko ci alquran miraaran wa takraaran innamal muminuuna ixwa yooyu yëpp mu ngi fi fa tabaarakallahu kon mu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara ñu am nag lu ñu yëkkati loo xam ni lii ba mu xewee it yëgaloon na ko ñëpp muy nattu bi nga xam ni moom la fi yàlla wàcce woon nattu boobu nag ba mu xewee na mu ko waxe woon mooy daf ko sukkandiku ci turu borom bi subhanahu wa taala mi wax ni wala tulqu aydiyakum ila tahluka bu ngeen gisee loo xam ne lii dana jur loo xam ne lii ngaañ lay nekk ngeen moytu ko moytu googu nag ci la nekkoon ba waxtu wi teggiwu ci tànkam bu ñu demee ci imam malik imam malik toog na ay weer yoo xam ni demu ko ci jàkkat ndax daw loo xam ne lii dafa amoon ba tax na loolu nag bu wàccetee di dox ba waxtu wi mu wàccaat ci ñun yàllaa ngi ñuy moytuloo wala tulqu aydiyakum ila tahluk ni ñu ko waxee woon léegi kon sëriñ bi nag di yëkkatiwaat kàddu di wax képp koo xam ne kii wax ji agsi woon na ci kaw ci sa kaw ba nga fogoru ci ànd ci ànd ci ak moom ñi ñi ñi nga xam ne àndoon nañ ci ak ñi ci àndul yépp mu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen xamal ni nag inchaa allahu taala danañu ubbiwaat jumaa yi ci képp koo xam ne kii rek waxoon na ko nga ànd ci ak moom mu ngi lay xamal ni aljuma bii di ñëw insha allahu taala danañu ubbi jàkka yeeg ubbi nañ jàkka yeeg yëpp ñun ñëpp rek ñu ànd delluwaat ci jàkka yi waaye ànd ak moytu te déglu docteur yi li ñuy wax ba nga xam ni bu lu xew rek ndax mbir mi ci ndoxal yàlla la nekk jeexagul kon nag ñu ànd di dem ci jàkka yi waaye di ànd moytu yooyu yëpp sëñ Babacar wax na mu ngi nuyu ñëpp nag di baalu xaq ñëpp incha allahu taala ñu bàyyi ko ak kàddu gi mu àggaleel ñu ko incha allahu taala. mbokk yi yéen ñëpp sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nee na gannaaw sant yàlla tekki julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na kàddoom yu néew yii mu ci bëgg a teg mi ngi koy teg ci kàddu yi Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz mii nga xam ni moo doon wax léegi ci ndigalam. nee na nag gannaaw bu mu leen jéggaloo ci baatam bi nga xam ni mënula jóg noonu nee na baatam mu xaw a am problème tuuti nee na wax dëgg yàlla mënoon nañoo yem ci li Serigne Babacar wax ndax wax ju ëmb lépp la mu ne ndax mu di wax joo xam ni ji njabootu Maulana Cheikh El Hadj Malick gépp lañu ci wuutu nag nee li tax ñuy wax du waxu kilifteef waxu ak bokk la. nit nag soo bokkee ne nit nag bu la yàlla booleek moom ngeen bokk. la ngeen bokk. la bu seddoo ko jotee. bu ko taaj ko ci digg ba ngeen séddoo. ko ca digg ba ngeen séddoo ngeen séddoo ko. mooy lu fi ci kaw mu ni dafa am lu fi yàlla wàcce wàcce mu dal ci kaw ñëpp. ci anam goo xam ne jiir néew na bu amee. nee na ci anam goo xamante ni bii néew na bu ñu ko déggee ci jamono. ndax nee na balaa bu wàcc. jéggi mbooleem bërëb yi. waaye daj àdduna gépp. loolu. balaa daawu ko baaxoo dañ ko daan dégg ci gox yeneen gox yi mucc ca waaye balaa bu wàcc bàyyiwul benn gox nee na ci bii lañ ko njëkk a gisee. yàlla nee na yàlla nag ak yërmandeem. ci lépp lu muy dogal. nee na yàlla lépp lu muy dogal bu fekkee ni loro nga ca bu fekkee ni loro nga ca biir loola yàllaa lay teg ca yoon wula musal ca loola nee na lii sëriñ Babacar wax na ko léegi nee eh, suñu ngir mi nga xamante ni bii ci la ñu tënku muy ngirum imaamu Malik nee na daw na jàkk ay bii ab diir bu yàgg nee na fa tabaarakallaahu sayiduna Umar ibnul Xataab radiyallahu anhu moom it def na ko ci gàttal rek kon nag loola bu di diree ko ba yegsi ci ñun mënuñoo def nag lu dul jaar ca tànki ñooñee nga xamante ni bii ñu jiitu woon ci loolu ndax nee lii diine la bu ñu tuddee imaamu Malik bu ñu bu ñu tuddee al imaamu Malik. tudd nañu diine. tudd bi ci des bi ci des. mooy ñu sukkandiku nag ci docteur yi. nee na ñu sukkandiku nag ci docteur yi. li ñu wax ci seen xam-xam. nga xam ni moom la ñu taataane ci ñoom ci seen xam jëfandikoo ñu jëf ñu boole ñaar yooyu yëpp jëfandikoo. xëy na bu ko jëfandikoo raw. nee na incha xëy na bu ñu jëfandikoo ñaar yooyu raw. li ñuy daw. bu soobee yàlla. ndax nee na rawkat. kenn mënu ko kenn mënu raw yàlla. kenn mënu la fexe ba raw yàlla. te li ñu ciy ragal. te li ñu ciy ragal nag. moo di dee. di dee. moom la ñuy daw. moom la ñëpp di daw. nee na. yàlla nee na. dee dàqu leen. moom. da di dox di dox di dajeek moom. nee na loolu mooy aaya ji wax loolu inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum bi ci des na bi ci des mu ne matula daw nee na matula daw takunu nee na bi aynama takunu yudrikkumul mawt kon nag ma dee moom du lu kenn mën a rëcc waaye lépp loo xamante ne sabab dee ni bii sabab mën naa sabab dee te du app ki nga xam ni moo war a dee tegtal na la. yàlla tegtal na la. noo wattandikoo wattandikoo. nee na euh, yàlla nee na bul fekk musiba. nga sànni ci sa bopp. nga sànni ci sa bopp. Euh, li sëriñ nee na li sëriñ bi wax. doy nee na doy na. pour ñu sukkandiku ngir ñu sukkandiku ci. fi mu jataay bi nag. na jataay bi nag. dañoo wuutu njaboot dañoo wuutu nag njabootu Maulana Cheikh El Hadj Malick gépp. ñenn ñi doxi leneen ñun ñu wuutu leen fii wax waxal leen lii ñuy wax kàddu yi ñu yëkkati am na boroom am na boroom nee na dafay nekkul am na dafa dem bërëb ndax mooy Seydi Abdul Hamid Si bu Serigne Abdoul Aziz Al Amin radiyallahu anhu nee na ak papam nag Serigne mam Alfa si bu Mawlana Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu ndax ñoom cellule de communication bi ñoom ñoo ne ci bopp bi dafa yàlla dogal nag kenn ki am ngàntalu yaram ki ci des tukki mm-hmm. waaw uh, nee na loolu moo waral gisu leen leen ci jataay bi ñun nag ñu ñi fi desandi ñu wuutu leen waxal leen ci seen seen kaddu nee na bu loolu passé ñu xamal leen ni tëj gi tëj gi nga xam ni moom la nit ñi tëjoon aju ci Seydi aju ci Mawlana Cheikh El Hadj Malick ak seen pas-pas ak seen pas moom diine ji bokk ak moom diine ji jëf ci li ci sëriñ Babacar wax. jëf ci li ci sëriñ Babacar Abdoul Aziz wax léegi. innamal muuminuuna ixwatun. ni innamal muuminuuna ixwatun. lu laal kii rek. lu laal kii rek. laal na ka ca laal na des. Eh, su ko defee itam. nee na bu ko defee itam. yii yàlla yàlla wàcce. Eh, buñ ci bëggee raw. buñu ci bëggee raw. waatasimu bi xablillahi jamian. wala tafarraqu nee na bu ko defee dañuy wax ni dañuy wax ni alxayru kulluhu fi l ittifaaqi wacharru kulluhu fi l iftiraaq ñu woote nag ñu dégg ñu ni ñu ba taataan ci ñiñ ko war a jëlee ci ñoom ñu wax ñu ni ñu yëf kat fi mu toll nii wàññeeku na waaye nag wàññeeku gi kat wuñ jubluwuñ ci ni jeex na nee na jeexul jógee gu fi waaye nag wàññeeku na nee na mukk xalaatuñoo weddi docteur yi njaal benn nga ba léegi ñoom lañu ciy déglu ah, di ci waxtaan ak ñoom ñoom ñoom nag ñooñu wax ñi ni mbir mi wàññeeku na ñu sukkandiku ca wax jooja delluwaatit fa ñu nekkoon fas yéene ubbiwaat jàkka yi incha allah ah, ñi nga xam ni ñoom lañ ko bokkaloon eh, nee na muy ñoo xam ni yàlla daf leen a boolee na maam Maulana Cheikh El Hadj Malick ah, ñu ni Tiwaawan tëj ñu ni Tiwaawan nañu seen jàkka ndax mbas mu mbas mu ci mu fi wàcc ñoom ñu daal tëj. ñoom it ñu daal di sukkandiku ca loola tëj seeni i jàkk. nit ku am nga nit ku nekk am nga wéeruwaay. waay la ci sa bu la neexee weeru ci sa bopp. nee na loola. du kilifteef du kilifteef. ordre bu ñu jox kenn. dañ ko bokk lu ñu bokk rek la. doxale ko noonu coow it bari ci nag. ñu bari di wax ci affaire ñu bari jàkka yi. waaye. masuñu ci kenn. waaye kenn masuñu cee wuyu kenn. ndax li ñu doy. ndax li ñu doy. moom lañ doon def doon def. li ñu gëm li ñu gëm. moom lañ doon saxal. ñu ngi sant yàlla nag ngi sant yàlla nag. fa tabaarakallaahu. ba nga xamee ni yàlla indi nañu ba ñu yegg si fii. ñu ni wàññeeku na. loolu yi ñu ngi ciy ànd di sant yàlla subhaanahu wa taala. yàlla na fi jaare jeex. yàlla na jeex nag fu ne ci àdduna bi yépp jeex ci jullit ñi jeex ci ñu dul jullit ndax ñépp nag njabootu yàlla lañu te nag boo dee ñaan wala ngay wax boole ci ñépp ndax yàlla miy joxe moom moo jaboote ñépp nee na kon du ñu ci génne kenn ci ñaan gi église beeg. église beeg. até beeg. até majoos beeg. majoos beeg. jullit beeg. jullit beeg. képp kuy nit. képp kuy doomu aadama. ñu ngi lay boole ci ñaan gi. ñu ngi lay boole ci ñaan gi. ni li fi dox. li fi dox. yal na nga ci mucc na nga ci mucc. ñi dem. ñi dem. yal yal na leen yàlla yërëm. te lépp lu ñu defoon te yàlla. te lépp loo xam ni defoon nañ ko te neexul yàlla. nattu bi wàcc ci seen kaw. nattu bi wàcc ci suñu kaw. ba yóbbu leen. ba yóbbu leen. yàlla na ko yàlla def muy seenu njëggal. yàlla yàlla def seen dem googee muy seenu njëggal. yàlla na leen ko yàlla defal. yàlla na leen ko yàlla defal. Eh, léegi nag. nee na léegi nag. ñu ngi ubbi jàkk yi. nee na incha allah ñu ngi fa yéenee ubbi jàkk yi. daanaka tey jii fii ñu toog. daanaka tey jii fii ñu toog nii. ku mu neex nga julli ji timis ci mu neex nga julli ji timis ci sa jàkka. ñépp déggandoo ko. déggandoo loolu. bu koy wax nag. nee na bu ñuy wax loolu nag. am na ñëpp ko bokk. a ko bokk. waaye am na ci gën a yey. waaye am na nag ñu ci gën a yey. ñi ko àndoon ak ñun. ñi ko àndoon ak ñun. ñooñu ñoo gën a yey ci ñu wax ak ñoom ci lii door cee jublu. nee fa tabaarakallaahu sutura yàlla yàlla na fi gën a sax buñ ci jógee nag buñ ci jógee nag jàkka yi bala ngeen ciy dugg jàkka yi bokk yi ñu ngi koy ubbi incha allah waaye bala ngeen cee dugg setal leen ko fexe leen ba setal ko wecc désinfecté fexe leen désinfecté jàkka yi soog dugg soog a dugg ci biir moo na loolu kat moo gën ndax am na ci jàkka yoo xam ni tëj tëj ga yàgg na lool kon nañ ko setal dóor caa dugg tappiyaak jaww ja jàkka ja lépp ñu fexe ko setal laabal ko ba bañ faa loru bu ko defee ñàkk yi nga xam ni ci ni nga xam ni bokk na ci gannaaw mesure barrière yi ci ndigalal docteur yi nee na docteur yi kat wax nañ ko fu nekk woote nañu guddi woote nañu guddi woote nañu bëccëg. nañu ñàkku. yi bokk yi na dem ñakku ji. dem leen ji dem leen ñàkku ji. ñàkku. du garab garab. waaye dana la sabab la ci aaru. waa dina la aar. Ah, mesure barrière yi itam. takk masque takk am gel am gel ci booy booy diwoo. boo jëmee ci jàkka ji. kooku itam ci moytandiku. itam ci ndigalu doktoor yi ci yu ñu war a taqoo la bokk. kon jeexagul. jeexagu fi. nañu leen saxoo yooyu. yi ñu ñu wax. te ñaan yàlla. ci jàkka yi ci jàkka euh, yàlla teggil ñu lépp. yàlla nag. yàlla nañ ko yàlla teggal. yàlla teggil amiin. Euh, ku fi des. nee na ku fi des te demuloo yàlla na la fi yàlla gën a bàyyi nga sax fi yàgg fi euh, ñi dem yàlla na leen yàlla yërëm bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa euh, lii nag biñ ko laataa def ñi nga xam ne ay kilifa lañu yu mag benn exemple rek ci kilifa yooyu la ciy joxe mu mel ni kër Cheikh El Hadj Omar Al Fouti radiyallahu an ñoom ñëpp informé kat wax nañook ñoom informé leen. ndax lii ñoo ko lii ñoo ko bokkoon. kon bu ñu ko dee def nañ leen ko yëgal nañ ni docteur yi nee nañu ni wàññeeku na mën nañoo tijji jàkka yi nee na looloo tax ñu tijji incha allah nee na bu ko defee nag ñàkk yi ñu fexe koo respecté bokk yi lii ñuy wax lii ñuy wax nii nag du du du lu ñu jàpp ni jóg na fi du lu ñu jàpp ni jóg na fi waaye jàpp nañ ni wàññeeku na waaye jàpp nañ ni wàññeeku na ndax su dul woon loolu ndax docteur yi luñ ko wax. ñun it ñun it. ba ko docteur yi jëkkee wax. ni jeex na na. nañu tijji nañu dañu bañ dañu bañ. ñun woon ndax. ndax. li ñu wéeru ci diine. ndax li ñu ci diine. moo ëpp. moo li ñu wéeru nag ci docteur. tijjiwuñu tijjiwuñu. dañu gàntu dañu gàntu woon. ba ñu gàntoo gàntoo itam. dox tuuti tuuti. gis nañu ni gis nañu ni yëf yi ndeke jeexul woon. la dellu si la waat. moo ëppoon sax li fi newoon. nee na loolu moo waraloon. bu lëf dee xew nag. bu lëf dee xew nag. yàlla bëgg nga mucc ca. yàlla bëgg nga mucc ca. fokk nga mucc ca moom. ndax nee na yàlla dafay wax ni. in yamsaska allahu bi durrin in yamsaska allahu bi durrin falaa kaashifa lahu falaa hu illaa hu bu bu ay am nee na bu ay am te bëggul nga mucc ca yàlla bëggul nga mucc ca ay woowa doo ca mucc de waaye nag wa in yuridka allahu bi moom yàlla wa in yuridka bi xayrin falaa raadda li fadli li yàlla bëgg ci aw yiw bu la ko yéenee moom yàlla foo jaar taseeg yiw wa nee na ci loolu rek la ñu doon dox booba ba tey nangu loolu itam ni yàlla moo tëral aw tëralinam ak kàttanam di ko doxale noonu ñu nit nag ñu topp ca ndax képp koo xam ni. gëm nga yàlla. gëm nga yàlla. la yàlla santaane. la yàlla santaane. boo ko boo ko mënul def yëpp it. boo ko def na nga ca ngër-ngëri. def ci def ci aslëf. la mu tere. la mu tere. soo ko mënulee boo ko mënulee bàyyi. na nga ko cof. nanga ko cof. yàlla. yàlla. fokk ñu tooñ ko. fokk ndax buur buy jéggale la. moom yàlla. te moom. te moom. nangu na. nangu na. ku ko tooñ ku ko tooñ jéggalu ko jéggalu ko moom yàlla njéggal gi moom nee na njéggal gi moom yàlla d'accord na ci ñu jéggal ko na ci ñu jéggal ko te yërmandeem te yërmandeem moom yàlla ki nga xam ni moom la ñu yàlla booleel ki nga xam ni moom la ñu yàlla booleel muy Seydil muy Mawlana Cheikh El Hadj Malick euh, euh, moom moom dafa ñu wax ni yërmande yàlla yaatu na yaatu goo xam ni yaatu na yaatu goo xam ni. ci misaal ci misaal. bu ko doon séddale. bu fekkoon ni yàlla daf koy séddale. ña gënoon a ña gënoon a kàccoor. ñooñ lay njëkk a séddu. ñooñee ñooy njëkk a séddu. ca yërmande jooja. kon kon. ku baax kon ku baax. wala nga jàpp ni baax. wala nga jàpp ni yaa ngi ca yoon wa. wala nga nekkoon ca la mu santaane. wala nga nekkoon nag di góor góorgóorlu ca la mu santaane. da ngay di am sa yaa ngay daal di am yaakaar nag. kon eh, kon nag. nee na ñu waxe ko noonu mm-hmm. ñëpp déggandoo ko ñëpp déggandoo ko mm-hmm. uh, léegi nee na léegi nag tiwaawan la ñu nekk ñun kat ñu ngi ubbi jumaa yi waaye ñun ñii tiwaawan lañu nekk jumaa ji fi nekkoon jumaa ji nga xam ni mooy al al jaamia al atiq bu Mawlana Cheikh El Hadj Malick dafa nekk ci chantier al jaamia al atiq dafa nekk ci chantier fi mu nekk nii nee na ñëpp it xam nañu loolu kenn xam nañu ni jamono jii kenn mënu faa julli waaye nag sutura yàlla am na sutura si moo di jumaay sëriñ Babacar radiyallahu anhu mi ngi fi ku dégg zawal demal ca jumaa ja julli ji jumaa ngay wut jumaa ngoog ju mat jumaa ñu mën caa julli nee na ñaari juma walla ñett amu fi lépp lenn la nee na kon nag bu ajuma jotee ñi dëkkee Tiwaawan te bëgg a dem juma bu ci kenn jaaxle na dem ñëpp julli ji ca juma sëñ Babacar si radiyallahu an neena jumaa ji moo juma jii ñuy tabax ñoo yem néegu yàlla la te nangu na charte yi nga xam ni jumaa joxe na ko ni nii la jumaa war a mel kon mën nañ fa jullee ji juma ah, ku fi jóge nag ku fi jóge nag eh, amee sa xalaatu bopp laa amee sa xalaatu bopp di wax sa waxu bopp di wax sa waxu bopp yaa ko yaa ko waxal sa bopp waaye ñun tàqalewuñu dara waaye ñun day tàqalewuñu dara lépp benn lañ ko def tàqalewuñu dara. am na nag communiqué yu yii. nee na am na nag ay communiqué yu jiitu woon yii. waaye bàyyi koowul ci ñun. waaye bàyyi koowul ci ñun. dañ ko dégg rek. dañ ko dégg rek. ci mbedd mi ñu naan nee nañu. ñu naan nee nañu. nit ñi di téléphoné. nit ñi di téléphoné. demoon nañu ba kenn wuyootul. demoon nañ sax ba kenn wuyootul kenn téléphone. ndax kenn mënul xam ndax kenn amatul looy wax. waaye. waaye. loola. loola. du woon ñun nag. bii nag. bii nag. mooy bu njaboot gi yëpp nee na ñépp ñoo ko bokk ñee ñu wuutu leen di seen ndaw raxal leen ko fa tabaarakallaahu ah, jaarale ko nag ci sëriñ Babacar Abdoul Aziz mu jotal ko maam Ousmane a ngi nii toog bu suñ maam Habib si radiyallahu anhu di sëtu Mawlana Cheikh El Hadj Malick nee na moom it noonu nee na ñëpp it wàccuwaay boobu la ñu am ñëpp ci sëtu ay sëti Maodo lañu nee na fa tabaarakallaahu ñu déggandoo ko ñun ñëpp ñaan yàlla nag mbas mii fi ne yàlla na ko fi yàlla jaarale jële ko fi dafa dooroon tuuti ñu di ko xeeb mu yokk mu dem ba mu yàgg wàññeeku tuuti buñ ko xeeb nañ ñaan yàlla mu jaare fi génn fi génn ci suñu biir génn it itam ci àddina bi nee na bu dee réewu tubaab yi bu dee ñeneen ku ne am nga droit yàlla sant la nga nga bañ nee na loola suñu yoon nekku ci sa diggante la ak sa boroom ku ci dugg nag mën ngaa taseeg yàlla mu ni la kii kat sama jaama ba muy moy nga di ko ŋàññ loo jote woon ak moom la mu doon def maa ko tere mu def ko sama digganteeg mooma yow lu cay sa yoon moo tax ñun daal li ñu préféré mooy maandu dañoo bëgg a maandu ci diggante jaam bi ak boroomam ñu daal lii daal mooy mooy suñu taxawaay nii lañ ko bëgg a doxale incha allah jàkka yi nag moom du jumaa jumaa bis la am jàkka nag waxtu la am bu waxtu jotee ku sa jàkka set mën ngaa julli ji ña ubbi nag sikkuñu leen de sikkuñu leen sikkuñu leen te duñ leen sikk mukk nag loolee loolee ñu def moo leen doy ñoom ñu def ko ñun nag it lii ñu doy def nañu ko def nañu ko sant yàlla nag ba fii ñu agsi eh, yàlla ñu yàlla gën a sàmm yàlla gën ñoo sàmm ñu gën a raw nag yàlla gën ñoo rawale ndax ñi dem fi ñu dem fi ñu jaar ba dem ñoom jaar nañu fa romb ko te loola lépp yàlla na nag euh, euh, nee na grande mosquée bu Dakar ñun wax nañoo wax nañu démb ak imam Papa Samb mu yëg ni lii ñu ngi xew wax nañ ko ko dem tabaarakallah nee corps médical bi fa tabaarakallahu ñoom mhm. seen taxawaay ñoom rafet na li ñu mën def nañu ko wax nañu def nañu wuti wuti nañu indi lu mën a jëm jaam yi bu dëppoo nag ak dogalu yàlla eh, kon nag ñoom corps médical bi ñu ngi leen di sant beral seen cant ñoom it ndax ñun la ñu doon daw moom lañuy ñuy ñooxu ñoom di ca dimbali jaam yàlla yi di leen faj ba jóg ba ñu jóg di dem seen yoon kon nag corps médical bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñaanalit nguur gi leen doon jox matériel yi ay moyem yokku ba réew mi lu ñu soxla man koo am waaw nee na loolu daal yooyu kàddu daal tabarakallahu yaakaar na ni doy na sëkk nee na ay wax la woon rek waaye la ci amoon solo dëgg mooy daal ngeen xam ni jàkka yi incha allahu taala ubbi nañu ko wala fas yéene nañ ko ubbi ba ci àjjuma ji nee na waaye nag li mu leen wax rek wax ji teguwul ci kilifteef du ordre bu ñuy jox nit ñi naan leen tëj leen ak ubbi leen ñi nga xam ni ñooñ ko seqaloon ñoo nga xam ni la la dayoo fii doyoon na leen ba ñu tëj ñoom ñooñu lañu ñu doon wax ni tijji nañu nañu tijji ku ànd ak nit ba ba jàdd jot bul jàdd wàcc ko wax ko ni ko nañ jàdd ñoo ñoo àndoon di jubal bu jàdd jotee nañ ànd jàdd nee na boo ko deful rek wor nga nee na te wor baaxul nee na ko moo tax ba ñu yëkkati suñu kàddu di ko wax pour ñépp dégg ko nag ndax ndax bari na koo xam ne danga koy laaj ni ko ndax mu laaj la ni la ndax Tiwaawan tijji nañu nee na ñoom xam na ni taxuñu mag ñi nga xam ni ñoo ñoo fi newoon te joxoon yàlla seen bopp liggéey it li fi ne ba yaakaaru nit ñi daje fi ñoo ñaa tax ñu agsi fii ñu yegsi ak kàttanu yàlla nag loolu lañu yàlla indee fii fa tabaarakallaahu bu ko defee ñu xam ni rek bu ñuy wax li ñuy wax ñun ñëpp ñoo ko bokk li fi xew ñun ñëpp ñoo ko déggandoo yàlla na fi yem nag yàlla na fi yem yàlla na fi yem docteur yi yàlla na leen yàlla dollee taxaw yàlla na leen yàlla dollee taxaw ki ne ci seen kanam yàlla na ko yàlla dolli ndam ki nekk ci bopp réew mi te jiite woon leen yàlla na ko yàlla dimbali sagal ko ci lii mu nekk ñi ci topp euh, muy ñun ñi di njabootuk Sénégal yàlla nañu yàlla dollee aar euh, yàlla nañu yàlla dollee musal yàlla nañ ko yàlla boole defal ñuy gërëm nag asfiya yi nee télévision Asfiya ñu ngi koy gërëm bu baax a baax nee na dëgg la suñu bos la sax teg ci it télévision Malikiya ñu ngi koy gërëm ndax ñoom ay jaboot lañu yoo xam ni bu dul woon liggéey bii ñooy daje ci ëtt bi di naan ataaya kon nag ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen ñaanal ak yokk ak dolleeku ak gën a dëgër yàlla na matériel bi gën a yomb yàlla na liggéey bi gën a développé yàlla na ko yàlla dollee barkeel yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na yàlla yóbbu liggéey bi ak liggéeyukaay yi ak mbooleem ñi koy taxaw yàlla yóbbu leen fu ëpp seen yaakaar yal na leen ko yàlla boole defal defal ñu ko nag defal ko mbooleem jullit yi nee nag bu ñu waxee nag bu ngeen déggee wax ji mu mu mel nu mu nu mu warul mel nee na mi ngi leen koy jéggalu nee na na nga yëg ni yéen ñëpp mi ngi leen di jéggalu mi ngi leen di jéggalu nee na jëluñu tiwaawan teg ci kaw kenn waaye jëluñu kenn it teg ko ci kaw Tiwaawan ñëpp la yemale ñëpp la yemale ndax ndax leen aaya jooju mu tari woon léegi wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu yàlla tuddul kii bàyyi kele ñépp la boole ci benn ci genn buum nee na lool yi la sëriñ Babacar Abdoul Aziz ubbee eh, kàddoom ci ndigalam nee na kon nag incha allah ñu yemale foofu kàddu yi waaw tey ñaan yàlla rek nag yàlla nañu yàlla dem dem bay waxtaane lii fi lii fi xewoon ñu ni mas na fee xew waaye nag jeex na nag alhamdulilah amiin amin amin nee na yàlla nañ ko yàlla boole defal bi jaay nabi Moustapha nee na mi ngi bëgganam Eh, maam Omar njaay mi nekk ci bopp Asfiyaay di di gërëm it Maxtaar Ndiaye mi nga xam ni moo nekk ci bopp Malikiya di dë di gërëm na caméra ñi leen di jàppale ñëpp commencé ko ci caméraman yi ñu yaakaar lool ñaan yàlla yàlla na yàlla guddal seeni fan jubalit seeni pexe nag may leen itam jàmm ak wér yàlla na leen ko yàlla defal nee na jubale leen yéen ñii nit ñu Amadou Mbuub ak ñëpp seeni patron nee na patron yi yit yàlla jox leen xol ñu muñ ci ñi nga xam ni ñoom la yàlla dogal ñu jaboote leen te di génn liggéeyloo nee na àdduna nag loolu rek moo koy doxal boo jiitoo del del geesu léeg-léeg buñ la jiitoo waaxul bu la kenn raw nee na kànd gi daal noonu la war a doxe nee na mi ngi sant ñépp di ñaan yàlla fépp fu waay toll di ñu dégg ñu ngi lay ñaan nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa gannaaw sant yàlla eh, eh, yàlla musal ñu te mosal ñu yàlla nañ ko yàlla boole defal bismillah nee na kenn ku nekk na jàng fatiha teg ci benn peru salaatal fatihi yaa kaashifa daa'i wal aswaa wa adraari mufida abuuri anwaari wa asraari بالاختيارك ما أرشى جل إلى أحبة كانوا أحياء وأحرار وسعت من هادير ومطيع زاهد باري ورحمة الله كل الخلق قد وسعت من هادير ومطيع